lamb ji nga xam te ne mën naan moo waral coow mhm. mu nekk le combat Balla numéro 2 ak Modou Lo mhm. waaw comme ni mooy faral di waxee rek c'est le combat qui fait l'objet de tous les convoitises mhm. waaw donc affiche boo xam te instant yi mën naa ni c'est une affiche donc qui a fait couler beaucoup de salive waaw tey nag nga jëm ci lamb jooju Balla Gaye ku nekk xam seen diggante ak moom tey ñu dëgmal lamb boobu nekk à quelques semaines donc du combat tey yow lan nga mën a wax ci lamb jooju waaw lamb jooju man li ma ci mën a wax sax du bari parce que xam nga lamb ak coow ñoo baaxoo te Balla suma rakk la ñoom ay relation Modou tamit suma rakk la ma am ay relation ak ñoom moo tax làmb jooju des fois dama ciy mal placé sax pour ma wax ci parce que benn côté bi su ma xoolee suma deret da ci nekk benn côté bi tamit su ma xoolee suma xarit da ci nekk kon muy làmb joo xam ne mën dama ciy mal placé pour wax ci mais nag looy dàq ci àll ba nga dàq ko mu jëm sa kër parce que deret moom yemut ak lenn quoi mais làmb jooj daal lu ma ci mën a wax du ci mën a wax lu sori du ma ci wax mën a wax parce que ñaari champion la ñoo xam ni bëri woon nañu kële yàlla may ko ndam ñu war a mën a bëriwaat te làmb revanche moo gën a metti sax que premier combat parce que Balla du bëgg Modou daanaat ko ndax Balla fi mu jóge la dafa jóge ci ay tolof tolof demoon gàddaay jël siwaat amaat beneen combat yàlla may ko ci ndam bi mu bëggoon bien vrai que may nañ ko ndam jox nañ ko ndam ngir euh, décision arbitrale mu am ci mu am ci ndam yàlla dox mu wëlbatiku bëreeg Modou Lo boo xoolee Balla sax combat bi ci moom la gën a nekkee à risque Modou parce que Balla fu mu jóge la bëgg ñëw am fu mu wanewaat tey jii moom daan Modou Lo mooy li ko gënal Modou Lo tamit daan Balla Gaye moo ko gënal loo gis parce que tey Modou Lo tamit su daan woon Balla Gaye même bu demee ba jël roi des arènes dina am gàkk-gàkk bu nekk ci moom muy digganteem ak Balla te Balla tey jii bu ko Modou daanee day tax xale yi dañ koy ñeme ñu ne yeneen xale yaa ngi ñëw ci te boobaa dañ koy dañ koy kii mais su ko daanee tamit dina am feneen fu mu ko yóbbuwaat mais combat bi ci Balla sax la gën a nekkee risque que Modou waaw oh, c' mais cool yi bëri na. Mhm. comme li nga wax nekkoon nañ ci ay tolof tolof. Mhm. Euh, récemment mu ànd ak Aziz daal mu yóbbu ko France INSEP su mu dem defaru ji. Mhm. Ah, bi mu ñëwee kat. tool yi ñu ngi naan na Balla il est pour cent. soixante dix pour cent quatre vingt dix pour cent ba adversaire sax ni liggéey na mais des na. est que yow ndo instant yow adversaire am li mu wax nan nga gisee mbër est ce que pare na wala am na lu des. Euh, ma fen Balla bi mu ñëwee ba léegi man gisuma ko naan kii da ko am ëpp lii moo tax mu daan ki ko mais man li ma wóor mooy Balla mi ma gis pare na waaw mi ma gis pare na parce que su parewu woon yaakaar naa ni du ni pare naa tamit ñëpp gis nañ coono yi mu daj foofu Modou Lo tamit ku ko xool xam ne entraîné na ñoom ñëpp daal ku ne entraîné nga ci ànd nga ak say say say mbokk daal jëlmal bis bu rëy. waaw bis bu rëy comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. Balla combat la ba am te ne nañ ci moom sax la gën a nekk risque. Mhm. tey boo ko doon digal lan nga koy digal ni tey loolu bu ko defee war na mën a génn ci combat bi. waaw xam nga moom. reenu ñàmbi la. kenn xamul fi muy damme man daal li ma di conseillé ñoom ñaar ñëpp mooy nañ def seen fulla ak seen fayda te xam ni Balla du cuune Modou du cuune. ku ci yàlla may di seetaan ay face à face am ay signature contrat yow mu may poser question sax dinaa dellu laaj mus nga gis Balla Gaye wax dara te def ko. non man may laaj. am na man wax ma la wax Balla Gaye ñëpp xame nañ ko lépp lu mu wax dina ko def bi muy bëreeg yëkki nii la mu leen waxal leen tas de laa la may soom ñëwul dinaa ñëw keneen ak keneen ba muy bëreeg giri tamit la même chose te ko ni woon mënoo xeex dinaa la woon ni la mënoo xeex te jour boobu ñëpp gis nañ baal ni mu bëree teg bëre bi fële xeex ak giri ba giri kii ñu door a jàppante xaw a bëre ba yàlla def ca lam cay def Balla bi ma xamee ci làmb ba léegi lu mu wax dina ko def mais nag lii nag yàlla moo xam mais daal man li ma xam ci moom mooy lool ay waxam nañ koy sóoraale ndax lu mu wax def ko. waaw loolu am na mais dafa nekk làmb joo xam te ne technicien yu bëri nee nañ mhm. combat la boo xam te tey. ki ko gën a teg ci yoon. Mhm. waaw dégg na récemment euh, Moustapha Guèye daal ne képp ku bàyyi sa morom bëree sa kaw mun la ñàkk combat. Mhm. dañu ku ko gën a teg ci yoon. Mhm. kon li muy mën a wax ni rek tey xeex bi waru ci bëri. waaw même xeex buy am sax. pour wut buntu lay doon. parce que tey point qu'on puisse dire. Modou Lo nekk na bon moo xamante ne xarañ na macha allah. tey li naan intelligence en mouvement mi ci moom. tey benn moyen de faire rek mun na ko exploiter. tey waaw loolu peut-être xam naa ni waxi mbër la mais làmb dafa doy waar mën nga wax xas sa xas def li ngay def ba dugg ci biir làmb ji arbitre bi siffle sa adversaire indil la benn stratégie boo xam ni il faut que nga changé parce que làmb nit mën na la ñëw woo ci xeex te du xeex nit mën nga ñëw yaakaar day xeex mu bëre parce que làmb moom il faut sa préparer à tout parce que bu arbitre xasee ba siffle mën nga indi lii leneen ñëw moo tax làmb booy dem ci biir ci biir géew bi di bëre ji wax ni lii laay def fii gisoo sa adversaire la mu def affaire bi loolu la waaw ñu fort ci yow bay tamit bëkki demo njaay ñu ni Balla di ànd ak sarak bay Njaay Nigéria mhm. est-ce que loolu ngañ ci leeral am na wala amul waaw man loolu ci nit ñi laa ko déggee franchement gis naa ko ci internet yi bi ma ubbee gis naa leen ñoom ñaar ñu ànd dem aéroport mais mënuma la wax ni fii lañu dem. diggante bi diggante wu ak baay. yàlla seet nag barke sëñ Babacar diggante wu ma ak baay. waaw ah, sëñ Babacar du ma ko gëñee caaxaan. gisante wu ma ak baay déggante wu ma mais dégg naa rumeur boobu ni ñu ko dégg nag. mais grand nga jàpp ni instant di def ci combat bu bëreetul est-ce que yoon la mbër di voyage sa trajet bu long boobu warul am ñeneen ñu mën a lijjanti loolu moom mu toog nekk ci ay waajtaayam. mais xëy na loolu moo dal xelam loolu am na xëy na loolu moom loo tax mu dem foofu. te xam combat bi importance bi mu am su ko jaralee mu bàyyi li mu waroon def fi dem foofu kon xëy na loolu dafa am loo xam ne lu mu tamit benn apport bu mu joué ci komba bi xëy na looloo tax mu def ko. waaw kon grand Massa dañu bàyyi leen nga mm-hmm. tàggatoo rek ak mm-hmm. message ngay lancé à mm-hmm. l'endroit des supporters et particulièrement la population sénégalaise ci bés bi ñu jëm. waaw man daal li may lancé supporters yi ak population sénégalaise yi mooy làmb ji ñaari doomi Sénégal ñoo koy def. duñu ay noon tàkkusaan moo leen boole tamit ñaari mbëri dañoo war a santante te xam ni suñu bëriwul woon xay na cachet yi ñu am duñ ko am kon ñoom ñooy mayante seen bopp xaalis li ma bëgg mooy gars yi nañ delloo seen xel yi te xam ni sport la cadre sport la fii dong lay yam lu ma ci wax ci mbokk grand ñu lay sant bu baax di la gërëm.